Amadou Clédor Sène yow yaay président mouvement citoyen bi nu duppee Claire Vision gannaaw buñ la doon xaar tey nga participer ci élection législative mi nga xamné ne gannaaw suba dimanche lañ koy dëbtal Yew nga sénégalais yi tey ak enregistrement sonore bi nga xamné waxtaan la bi doxoon sa diggante ak sa frère Pape Samba Mboup Tay ji sénégalais ñu ngi laajte baat bi ñuy dégg yow la ndax enregistrement bi authentique la wala. alaykoum wa rahmatulah euh, ma ngi leen di delloo nuyu. Euh, fi nga dooree laay laay indi tontu euh, effectivement euh, man candidat là ci élection législative je demuma ci turu Claire Vision Gindi Askan bi mais maa intégrer intégré benn liste de ñu crédit cadre de réflexion pour un développement intégral donc nous, on est présent ci élection législative yi lima lima lima lima ma li askan bi lu wér la lu authentique la man ak pap Samba Mboup ñoo ko doon waxtaanee comme ni ko déggee ci audio yi donc loolu lu wér a wér la. Samba comme ni mu ko waxee ni mu ko xamele ci enregistrement sonore bi moom frère nga xaritam nga looloo waral mu woo la ci ay mbiram seen xarita boobu nu mu dóoree. non ànd bu yàgg la parce que euh, depuis les années 88 la ñu xamante ba noppi moom mu ngi dëkkoon presque sama koñ parce que Bastos ak Front euh, de Terre bem koñ la bu daan liguey bala muy xey day jaar sama kër donc euh, ay dëkkandoo lo ñu won d'abord bu nopi andone ci mouvement su 88 bi nga xamni ni euh, période de contestation lo won bu sara sara sara donc lolu gën ñu gën ñu rapproché donc xamé gu yag la ànd bu yag la coloré bu yag dox sa diggante ak moom tey jii waral nga daal di weer sa wóllëre bi teg enregistrement bi ngeen xam ne waxtaan bu dox sa diggante ak moom teg ko ci place publique bi. waaw parce que fii dañuy dañuy jaawale ñaar euh, xaritoo ak intérêt ñëpp euh, Samuel Sarr sama xarit la mais en 2011 bu muy jalgati courant bi te ma man ma jàpp ni ci TF la ko doon jalgati dama ko woo jëluma te dañ daan déggante téléphone. moo yónnee ko ay message jëluma message yi nee naa ko bàyyil li ngay def parce que xam naa ni yaa koy def parce que dafa am lu ma ko xamal dañ daan waxtaan ma ne ko soo bàyyiwul li ngay def nii man dinaa def benn sortie pour dénoncer ko réagirul man ma dem accorder benn interview dévoiler li mu doon def parce que moom mënu ma woon supporter parce que Samuel sama xarit la mu dagg courant bi tey ay bateau yu war a livrer carburant Sénégal Sénégal di manqué approvisionnement nit ñi di manqué gaz may gis sumay may génn ay rang station ñuy rang ay gaz di bay bay bay bay xéxo ma xamni li lii ben doomu adama la bo xamni sama xarit la man duma am sax xel ñaar ndax dama wara choisir entre xarito gi wala intérêt askan ba ma defee interview bobu sama papa bima jur daf ma ni clé d'or li nga def du ngor parce que Samuel sa xarit la bobu sama papa ni États-Unis daf ma wo dima xass mais comprendre li tax ma def lolu du won pour pour pour pour beddi xarit mais pour intérêt askan bi pour pour dakkal askan donc ki li ñu xarito xaritoo bu fekké ni Sénégal dañu lal lo xamné pour jalgati élection la nga xam lolu bu amé du jur jamm ci réew mi parce que 88 li indi won état d'urgence bi ak problème ci am yépp jalgati élection lu won té man dama ko dund deg ci lu nekk donc lolu su ko gisé muy ñëw léegi ñaari choix la am ama mëni ni pat ndax ki sama xarit la ma bay ñuy dérouler di nax nit ñi parce que traitement audio yi dafa incomplet parce que presse bi li ci sensationnel le jël bokk na ci li ñu diisoo bu élection yi jàllee ñu ñu ñu ñu bokk gouvernement bi gouvernement d'union nationale xaw ma élargi lañ ko Nous avons ñu am quota ay ministres ay directeurs de société ay PCA président conseil d'administration ak ay ambassades et consulats loolu ñu nas diko ko diko seddo ci kaw jalgati bëgg-bëgg askan bi ma ngi bëgg wax volonté populaire foofu parce que loolu dafa war a ci yoon légui man loolu est-ce que man war naa ko noppiwaale sama sama conscience mayuma loolu motax intérêt général euh, euh moom l'a choisi te en connaissance de cause parce que seddul am na lu ci mën a parce que euh, yoon mën na la ci dab mais malgré lolu yep dama japp ni lolu euh, mom la wara def parce que xaritoo diggante ñaar nit rek la man sama intérêt man kenn man nee nañ ma ñëwul ci liste bi ñu def la position boo xam da ngay mën a falu ñëwal ñu jox liste bi muy def noonu ci ñoom seen liste waaw ci listu mbooloo wàdd boobu ñu la bëggoon a tàbb dixième position ne nga bañ nga ndaxte xalaatuloo nii war ngaa mën a mën a falu nekk député waaye gannaaw loolu lu ñuy laam laame moo di man si fan yi ci gannaaw recevoir woon naa du gisee ci sama bureau mu ngi ma doon wax ni waa mbooloo wàdd liste boo xam ne fantaisiste la bi nga xam ne nguur gi moo leen di jox xaalis waaye waxu doon tuur waaye tey gannaaw bi ñu la dégloo yow Macky Sall ne moom moo leen di jox xaalis tudd nga Samuel Sarr Aïda Mbodj ne nga ñooñu ñëpp dañoo bokk ci ci ci ci lobby boobu est-ce que gannaaw ñooñu mën nañu xalaat ñeneen ñi nga xam ne ñoo war a am list yu mel noonu te Macky Sall fay leen pour ñu jaxase carte yi. no loolu mënuma ko xam li ma mën a li ma indi ci firnde solo xibaar bi mooy am na ay liste parce que ñu ngi doon laam-laamee liste yu bëri Macky Sall moo ko parrainé Li firnde la ci Macky Sall mo parrainé ay liste yu bris, parce que am ñu euh, li leen parti du la lu mana euh ñoñu amuñu moyen battre campagne yi ni affiche ngay gis ci une yu Macky mais ay millions yu bari la amna ño xamné sen loxo jotul ba nopi dañu am moyens yoy am ay auto di di circuler mais moyens yooyu fan la mën joggé légui Sénégal xamanté nañu mënuñu exemple dana tax nit ñi gis firnde ci ci lépp effectivement nguur gi da fay parrainer ay liste yu bari yu bari yu bari yu bari ñoo leen di fayal caution ñoo leen defal lépp lii firnde la ci euh, euh, euh, wax bu leer la du du lu ñu inventé léegi nag ñan la exactement lolu njort rek lañ ci mëna am mais do mëna am firnde ci ñëpp man mënuma xam li wa Sénégal yëpp di dox ki nga xam ne sama xarit la ma xam ci lu mu nekk lu muy dox moom laa mën a saytu ba xam ni kii ci lii la nekk donc loolu mooy mooy mooy mooy solo xibaar bi. kii di paap sa Mboup ak Farba Senghor bu ñu leen di xool war ñu mën a xalaat ni ay force politique la ñu fii ci Sénégal ba tax nit war leen mën a fullaal donc li ma jaaxal man ci mbir mi lan moo waral Macky Sall moom ñaar ñooñu rek la war a mën a tànn daal di leen jël fay leen. pour ñu tax ko ñaar ñooñu dañuy nekk ci kanam rek mais groupe la. lu tax ñu tànn leen parce que euh, euh, ku mel ni Farba man amna naa lool mu yëgoon ni Macky Sall mo len di financer parce que dama posé euh, Pape Sam benn question ni ko est-ce que ku melni ni Farba Senghor mu ni ma ils le savent ci la commencé enchaîner nan intérêt li lii da jox li et cetera man loolu kérok la la la la sama nopp dalu ci loolu parce que loolu mosuma ko xalaat donc euh, ku mel ni Pape Samba Mboup tamit yag na PDS yag bo xam euh camp adverse bi Macky Sall bu leen amee mais day diviser adversaire bi gën taxaw muy muy muy mouvement su PDS bi ak PDS ak aliem politique la politique amul mayante dara donc ñooñu tamit euh, xëy na toll nañu tolluwaay bo xamné euh mënuñu muñ euh, seen changement de situation bëgg nañu euh préserver sen sen sen sen sen ay train de vie ak euh, li leen yalla défal donc ba ñu mëna bëgg bëgg continuer loolu parce que euh, projet bi moo doon ñu continuer ba ci gouvernement ba ci ba ci poste yi séddale yëpp ñu am ci dara am ci sen teranga donc sen teranga la donc ban intérêt le président Macky Sall am ci lool mais day day day day wàññi adversaire day tas parti bi day tas parti xol PS xol AFP mais ñepp tas nañu même réew mi l'affaire Omar Sarr la ay met Nafissatou yooyu c'est la même c'est la même c'est la même logique même logique bi la loolu mooy logique gu président Macky Sall résultat yaa ngi nii cest à Sénégal li teew rek la ñuy wax li ko jiitu duñ ko ko sax xalaat mais yàgg na ci lii diviser partie éclaté éclater parti yi di ci récupérer ay nit même buñ ko amulul benn njëriñ sax l'essentiel na wàññi fa ñu jóge rek jeex na loolu mooy logique am. liggéeyu Farba Senghor ak Pape Samba Mboup gannaaw buñ la dégloo moo di luubal carte yi ndaxte commencé nañu ak coow lii nga xam ne moo yeewu. ci distribution wu carte électeur yi waaw gannaaw bu ñu élection yooyu jeexee ba mu indi ay coow yow pour yow lan moo war a mën a nekk conséquences yi. non conséquences yooyu conséquences yu grave la moo tax di ma may ma dellu si ci sama solo communication démb bi nga xam ne euh, presse bi euh, euh, jàllale wu ko parce que presse bi dañuy jël ci audio bi rek def ko xibaar traité wuñ ko sax dañ ko jàllale noonu rek. man li ma taxoon a woote dem ñett la benn bi moo doon titre foncier Touba bi ñu leeral ko lu tax ñu koy loué parce que directeur Petrosen wax na mais tontu wu ci parce que kenn amul droit def transaction ci titre foncier wu jàmbur ci lu dul ndigalam loolu délit la délit boobu day gën a grave bu fekkee ni président moo ci apposé signature moo ko permettre parce que loolu warul la mën a nekk te lu nekk la Sénégal ma ma ma ma ma ma ubbi ci bëtu nit ñi gindi ci askan bi ñaareel bi moo doon processus électoral bi Euh, carte d'identité mais chaque jour nga gis ay carte d'identité ci ay ci ay mbalit ci ay jeunes yo xamné ni ñom Barthélemy ay carte d'identité et puis ñu biométrique c'est informatisé nit am ñaari carte d'identité mais légui ministère de l'intérieur une euh, direction des des élections une te mooy premier pilier bi bi leral bi bi bi bi leeral processus électoral deuxième pilier bi Sénat Sénat mo fi nek pour yu melni bu amé rëq-rëq yu melni bu amé mu mu mais jëlul ben avis ben décision té chaque jour ci réseaux sociaux yi ngeen gis ay fraude ci carte d'identité ay irrégularité ci carte d'identité yi loo police moko wara yor wala DAF wala préfet sous préfet nga koy gis ci ay nek ci ay matelas ci ay poubelle ci ay mais loolu musul am Sénégal te ñu def ci cinquante milliards donc Sénat tamit ndërmeelu na ñetteeli bànqaas bi ndërmeelu mooy démb maa ngi doon wax ñu ngi déglu conseil constitutionnel parce que ndax war na maye ñu voté n'importe quel kayit permis de conduire récépissé passeport ak lu ne loolu day day day parce que yaa ngi laaj benn conséquence le mën a am dafa may fàttali man mi fekkee démb problème mu ordonnance yi amoon diggante PS ak PDS parce que affaire u récépissé yi ordonnance yi rek presque voté ak document bu nekkul euh, bu lay identifier amul photo amul dara kon ñetti courriel yi nga xamni ne ñoo war a élection yi ñom ñëpp ndërmbeelu ñu conseil constitutionnel mo ci mujj kon ñu ngi jëm ci lu leer ci ay élection yu am ay jafé jafé yo xamni dañ koy contester donc li tax ma indi audio bi pour ñëpp xamné dañu lal plan pour jalgati élection yi plan yi mu ngi commencé ci carte d'identité mais li li ma li ma li ma mais le dispositif bok parce que c'est deux députés, par exemple si buñu outé ay listes, 20 listes ku ci nek bu amé 5 députés sax dara la hein lolu dara la ku 3 députés dara la 3 députés dara donc qui nga jox ko quota qui nga quota 25 ou 30 ñu ne amoo majorité absolue mais da nga def coalition euh, parlementaire euh, euh, pour pour mëna am majorité à l'Assemblée nationale lolu moy plan bi. gannaaw biñ ko dégloo fukk ak juroomi député yi nga xamné pap Pape Samba Mboup wax nako ko na Macky Sall ñom la ko dig ñom mbolo wad waaw pour ñom en tout cas Farba Senghor confirmé na ci ben émission buñ wax grand oral parce que demb ci ben radio de la place léral nañu lolu parce que mom, yëgoowu wu mak mom mom 15 la fu tudd man tam 15 le 15 le pap Samba Mboup tudd. donc ñoom ñaar dëppoo nañ ci ñaari chiffres te yëgoowuñu kon loolu dañ leen ko wax ndax nag dañ leen ko naxee wala dañ leen ko digg rek loolu la ñu la xam mais lu ñu jàpp la ñoom waaw dama bëgg nga may mu tuuti ma dellu si ginnaaw ci dellu si ki nga xam ne mooy Farba Senghor ki nga xam ne moo di benn ci ministre Sénégal yi nga xam ne mës na génne compte bancaire bu 1 milliard pour demander visa pour doomam te it plan jaxaay ak li mu liñ ci defoon ci alal dénkoon ko ko kooku nan la mën a toll tey bay war a mën a soxla 500 millions yi nga xam ne mu ngi ko yaakaare ci Macky Sall pour mën a joxe ay dépenses. non xam nga situation nit mën na jóge ci ndóol dem ci dem ci jàppandal nit mën na jóge ci jàppandal dem ci ndóol parce que àddina bul buy tourner situation doomu arabe changer à tout moment Je ne sais mais euh, ñi fi ñak ñu ngi fi tok ci sen ngor ku nek nak ak li nga gëm rek Farba sengor. ak Pape nga nga ne tax ñu Samuel Sarr mo nekkul ci situation de lu waral mais Samuel Sarr nekkul ci situation mais dafa am ay intérêt parce que un homme d'affaires Je suis un ni fi am gros contrat qui suis fi indi euh, maa un jour je euh, me présenté Franck Timis à euh, Sall c'est vrai mais Franck Timis Samuel Sarr est indi Sénégal Pierre Marouane Hamé qui yor Fortesa bi le gaz Samuel Sarr est indi Sénégal Ou MDL ñoo yan England Samuel Sarr moo leen indi Sénégal ñooñu dañu am de gros contrats contrat MDL mooy ñuy exploiter zircon bi mais am nañu également mine or Sénégal oriental donc ñoom dañu am ay ay ay gros contrats. Euh, Samuel ci monde finance la nekk kon moom nekk ak nguur daf koy arranger d'autant plus que Marem Faye xaritam la Macky Sall xaritam la donc moom il est dans son rôle de préserver ses intérêts et puis ce c'est pas un politique Samuel. c'est pas un politique Bon tous les grands milliardaires sénégalais mais ni ci Ablaye Wade ba pour parce que nous sommes mënuñu opposition parce que c'est des hommes d'affaires logique donc c'est la position Samuel Sarr. conseil constitutionnel mi di dugg Abdoulaye Wade Farba Senghor Pape Samba Mboup Samuel Sarr yow Amadou Clédor Sène yéen ñëpp ngeen nekkoon ay acteur yi nga xam ne yéen a joué woon rôle bu mag ci 1988 ak 1993 te tey ñu ngi dëmmal di dem ci ay élections yi nga xam ne ñëpp tiit nañu ñëpp jàkkaar nañ ci élections yi lan la mën a jural Sénégal tey. non ñaari question yi nga posé dafa dafa àndul parce que yaa ngi posé question personnelle ci sama relation ak Abdoulaye Wade ak 88 euh, ndax tragédie bi laa gis ni dafay dafay ñëwaat effectivement tragédie boobu laa gis ni euh, dafay ñëwaat parce que ñu ngi semé germé yi euh, parce que li ko indi woon mooy jalgati ay élection te loolu moo nekk di tegu nii suñu kanam ñëpp gis ko ñëpp constaté ko kenn waxu ci même église bi dafa daan produire ay lettres di alerter man dama ci daan jot mais même ñoom bi yoon dégguma leen donc ñëpp ngi ni tek di seetaan te ñëpp xam nañu fi ñu jëm baaxul donc léegi man mais de toute façon àgg nañ ci élection yi dimanche la on va voir ce qui va se passer parce que élection yu leer man dina ma bett mu am dimanche loolu la ñëpp di ñaan nag loolu la ñëpp di ñaan mais dina ma bett lool lool lool te loolu bu amul mais responsabilité principale au régime bi la Macky Sall ministre de l'intérieur ba ci Sénat mi nga xamné conseil constitutionnel parce que identification de l'électeur ci loi électorale Donc le donc conseil constitutionnel waru won autoriser récépissé même carte d'identité euh, a euh, permis de conduire on pourrait comprendre parce que y sax photo bok am di nga di pièce d'identité on ñu la koy defaral wala de naissance

bu fekkee dafa ànd ak permis de conduire même loolu dafay des parce que permis de conduire Sénégal mën nga ko amee neneen ci dëkk bi la ñu dëkk fiableul euh, mais li gën a grave du loolu mooy ñaari carte d'identité man tey am naa carte d'identité numérique am na carte d'identité biométrique man gis naa sama benn xarit bu am ñaari carte d'identité biométrique ak numérique sant de vote yi c'est différent mën na voter fii après dem voter fële man tam am na ñaari carte d'identité mën naa voter ci suba ngoon ma voter su fekkee ni ñoom ñoo majorité ci classe yi nga xam ne am nañu vingt représentants parce que homologué nañu 20 listes mais forcing bi day jàll loolu nag li muy indi du dara lu dul ay te bu boobaa dañuy wax opposition bi wala waa Sénégal bëgguñu jàmm alors que ñi nga xam ne ñoo ñu pousse ci loolu ñoo ñoo yàq dëkk bi ñoo yàq climat de stabilité parce que ñun li ñu rawee dëkku Afrique mais président Macky Sall en démocratie il nekk droit mais man gisuma ni euh, jëmale nañu kanam les sénégalais yi bokk ak man gis-gis avant muy deux ans ñu comme nous l'avons dit. Mais, nous mais dañuy rendez-vous électoral pour faire une opinion pour voter Nous nit ki cinq ans Nous nous sept ans nga cinq ans bi une élection législative Nous bëgg quand même exprimer votam yow nga faussé règle jeu yi bien avant Installez votre bi en plein hivernage Il dafa mel ni lu téye ndoxam ba élection yi passé ñu wax nga jël carte d'identité yi def ci lu neex conseil constitutionnel juróom yi Macky ñoo koy fal ñaari Moustapha Niass ñoo koy fal te moom loo wax mu ni maa donc du amuñu éthique boo xam ne am nañu donc nous sommes ñooy ñooy ñooy dogal ñan conseil constitutionnel conseil constitutionnel dit que dogal avons mën nañu voter mais nous avons gannaaw kon Donc lu fi am Nous piliers yooyu lim Le responsable ministère de l'intérieur direction des élections sénat le conseil constitutionnel Le président est la clé de voûte des institutions donc suis le premier responsable Amadou Clédor Sène ci waxtu yi ñu toll ñu ngi xam ni Pape Samba Mboup mu ngi gendarmerie di porter plainte contre yow gannaaw yow bi nga xam ne lii ngay def waxtaan bi boo ko génne woon am na risque boo xam ne mën na la ci fekk moo di ay tëjub kaso wala leneen lan moo waral yow Amadou Clédor Sène nga ñeme jël ay risque non loolu du risque euh, euh choix la parce que choix bon len ma comprendre euh, dama am choix entre ñaari attitude soit ma xam li ma xam Je suis pat ni su ko waxee je suis sama xarit donc gi protéger wala ko dañ may prison ragal moy tax man ma suis ñu nit carte gi dëkk bi après dëkk bi nekk ci fitna je suis la amone wala bok ma def li ma def ni ay ci ma assumé ko maanaam li ma ci mën a góobe ma gar ko mais au moins askan bi gindeeku ci te ñun suñu slogan mooy gindi askan bi léegi loolu boo ci nekkee nag parfois euh, euh, da dangay da ngay am loo ci loo loo la ciy dal donc ñoom ñu ngi nekk ci logique bu porter plainte mais man loolu loolu xam naa ni moom mu ciy fekk euh, xam naa loi

est-ce que dama war a xool sama intérêt personnel ni lii mën na ma ci fekk naa ni pat ñëpp ñu ànd ak moom jàpp ni opposition la ñu àndal fekk ñoom nguur la ñu àndal loolu escroquerie électorale la donc loolu mooy moo mooy moo moo tax ma ma ma ma finalement décidé xalaatuma ci ñaari yoon sax euh, gindi askan bi léegi lu ma ci lu ma ci góobee ma gar ko parce que noonu la àddina noonu la. ci tuuru Kéwoulo point info ñoo ngi lay jaajëfal.